waaw affaire moom tey moom policiers moom fees nañ del dëkk bi mais ñun moom dëgg yàlla ñun bu gars yi ñëw dañu laal suñu bagage tal ay xar bëgg xaru tabaski amagoon sax nga yaakaar manifestation bi nga xamante ne marche bi war a am ci kanam nga yaakaar léegi su ñëwee ak euh, gars yi est-ce ah dañuy yàqal kay ñun moom ay ko daal lañ wax dëgg yàlla mais dañuy yàqal mais manifestation dañu waroon bàyyi ba événement yi pass ñu doon ci isaan doon jaay ko suñu jàll yaay isaan tol ñun taluñu len ñu ne daal lañ bëgg a jaay taluñu xuloo taluñu xeex dañu war a bàyyi ba tëbës gi paas yu doog a julli ci yooyu mais métti na trop nag dëgg yàlla est-ce que mënoo woon a bañ a jaay tey moo gën ah mais waaw mais buñ toogee yàlla xam ne yoruñ dara yaa de borom kër lañ buñ toogee nii nii dem kër ga toog du dara du dox isaan tol amagoon jógu xar yaa ma gën a xam isaan tol nii sama waa ji mi ngi jege ba Thiès waaw métti na trop nag buñ toogee léegi yaa ngi yaa ngi naan ci say biir wax su gars yi ñëwee ma daa ji laale samay bagage daa ji daw bagage moom dem ñibbi moom ñun xooxu ñu xulawun ñun dañoo paas ñëw ñu ñun ay bawal bawalan ak njàmbur njàmbur ñoo fi daje fii ci ay waaw fii xulawun xeexuñu taaluñu fayuñu defun dara ñun daal bu ñëwee dañu laal suñu bagage dem ñibbi suñu kër toog takk jóg waaw di wax sama waa ji nag mu wax ci kàddu mu sànni ñaar rek waaw donc d'accord sama waa ji lay wax waaw comme li sama wax rek affaire moom mooy loolu quoi ren moom gayen dëkk bi metti na torop torop torop torop lii ma am ci réew mi quoi lii comme événement tabaski des ay trois jours dëkk bi mel nii lii kenn xamul lan la quoi yàlla xam ne gars yi pour ñu xëy jaay benn paire daal rek problème la te lépp à cause de gouvernement bi rek ak gars yi la quoi billaahi mais nag yàlla baax na daal. am nga xar wala amagoo xar. ah amaguma mais des na quoi vingt heures mën na ma lijjanti xar incha allah. nga yaakaar ne manifestation bi est-ce que munu euh, kii kay marche bi est-ce que du fi fitna. ah man na man de bu ñëpp defee na man fitna ban na bañ a am quoi. fitna moom mën na bañ am parce que man bu ma gisul lu ma xam damay laale samay bagage dem toog sama kër ba gis lu ma xam ñëwaat dóoruwaat quoi parce man liggéey rek laa gëm quoi liggéey jaamu yàlla bu jeexee jeex na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 sëñ bi ah, sant maa lay ziar yow. marche bi nga xamante ne nii waaye yow askan war nañ ko amal léegi ci kanam la moo ci sa xalaat. ah booy nanu bàyyi ñu liggéey si événement la nekk dëkk bi dëgër na dëkk bi amul xaalis xam na nan bàyyi gars yi ñu dem liggéey gaan ñu woote jàmm jàmm dafa baax réew moom na am jàmm ñëpp am jàmm réew mi du amul jàmm kenn du am jàmm ni dana bëgg a xëy bëgg a liggéey mu tëkku nan indi jàmm lépp neex. loolu mooy problème mu Sénégal bi nga xamante ne nii ay fan la ci des parce que ñëw na ba pare gars yi di marche tamit ñu bari nee nañ dañ ko waroon a pousse wala ñu annulé ko. waaw nan ko bàyyi rek nan bàyyi marché yi nan bàyyi xam na yow mii doo noolee doole ay marché yi du la arrangé gars du duñu marché dara du doxul yow moom day gën a sonn rek nan bàyyi marché yi jéem a xool leneen mu gën na booy bàyyi marché bi dem jéem a liggéey. waaw lan ngay wax président ma Sall. président Macky Sall noo ko bàyyi Sonko ak dem dëkkam cooli jeex waaw. loolu mooy problème bi waaw réew mi moom lu métti métti Macky Sall nan wax dëgg ma faralu ma Macky Sall faralu ma Sonko Macky liggéey na man chaque jour kees lay jógee di dugg dakaar mu mu. yow Macky Sall nga. non du ma Macky man du ma naa fekk dama lu lu nekk laay wax Macky Sall lu ko nit di bañ xamal liggéey na man chaque jour maa ngi dugg jógee Thiès di ñëw Dakar man xam naa Macky Sall liggéey na waaw Macky liggéey na. waaw léegi moom gars yi nan xaar rek ba troisième mandat du jotee da day dem troisième mandat gars yi bul dem wax ji jeex nan ko bàyyi mu liggéey rek. su boobaa koy voté ah? ah. Ah. mi na neex rek. waaw kon baax na sëñ bi la soxna si. nga gisee situation dëkk bi ak fi tabaski bi tollu marché bi nga xamante ne ni waa Yewwi Askan Wi dañ koo war a def. daal loolu ñaawlu naa ko quoi parce que eh, instant bi tabaski fu mu toll ni genre. ay trois jours 4 jours ñu ne tabaski te instant bi dëkk bi dafa metti tu vois xar yi dafa cher te mooy loolu daal maanaam du ma soñoon marché bi même bu dee dañ koy def sax mën nañu ko bàyyi ba après élection parce que dëkk bi ku ne amul lu la metti rek genre da ngaa nekku si dëkk bi parce que situation bi ni muy demee nii neexul kenn quoi tu vois duñu soñoon daal ñu bàyyi marché bi affaire yooyu noonu quoi te xam ni instant bi tabaski bi nii am na borom kër yu amagul xar ak yeneen ak yeneen te mooy loolu noonu xanaa manifestation yi passé daf laa laaloon. waaw ah, manifestation yi bien sûr sama place fii nañ ma dugalal lacrymogène ay deux yoo xam ne fii mënuñu job parce que marché bi du suñu arrangement quoi ñun ay nekk ay jeunes yoo xam ne genre même même suñu bokkul ay ci yi ñun am na lu ñu bëgg parce que tu vois bëgg nañ am suñu yëfu bopp mooy loolu noonu te aussi lool loolu jàmm rek moo la ko mën a may parce que mënoo xëy ne da ngay liggéey te amoo jàmm lépp si jàmm la xaj tu vois. dañ ko su ma sañoon ñu toog taabul waxtaanee ko waaw ñu passé yi quoi mooy loolu noonu. lan ngay wax président Macky Sall. président Macky Sall mooy lu ma koy wax lenn rek la muy mooy suñu président ñun ñëpp te aussi yàlla moo ko jiital loolu foog ñu nangu ko parce que mënuñu ci dara. tu waa mais moom tamit dafa war a xam ne tamit mooy moom responsable la aussi te lépp aussi moom laal. lu ma la ko mën a waxee daal mooy moom moom moo war a bàyyi mu sedd parce que lépp moom la tu vois mooy chef d'état chef armée tout tu vois moom su il suffit que mu toog jël benn discours bu ndaw lépp bàyyi mooy loolu te loolu la war a def parce que réew mi soxla na loolu noonu parce que nit ñi dañoo sonn tu vois lii ba kañ ba kañ ba kañ ba kañ mooy loolu noonu noonu la demee. ñu ngi lay jaajëfal. non booy booy moom lu ma leen di wax mooy mooy genre xam naa ni seen bopp yi dara nekk si quoi parce que doo nekkee ndaw. man yaakaar naa ne war nga am yeneen yeneen yeneen vision en tête tu vois combat bi mën nga ko mënee mais si si neneen mais pas nekk si yàq laate di yàq ay association parce que en plus terre bi ak leneen ak leneen yi ñuy yàq ñun ñoo ko moom am dégg nga même suñ ko yàqee tamit si ñun la ñu si ñun lay delluwaat quoi lu ma la mën a wax quoi en fait si ñu lay delluwaat quoi dama sañoon daal ñu bàyyi lépp tu dundaat comme ni ñu ko doon dundee bu njëkk parce que Sénégal instant bi loolu la soxla tu vois jàmm ak stabilité ñu loolu lañ soxla instant bi nii mooy loolu te président Macky Sall maa ngi lay ñaan tu lépp nga bàyyi ko te yàlla rek tax tu vois parce que sa peuple instant bi lu dul jàmm soxla wuñ ko mooy loolu. d'accord jaajëf sëñ bi ñu ngi lay ziar. maa réew mi jamono juñ toll réew mi xaw na jaxasoo tuuti ak marché bi nga xam ne war na am ci kanam. ah waaw marché bi na am rek réew mi bu jaxasoo te nit nag. booy bi tooy ay célibataire la mais kenn du booy yi fii may sa fii di wax dara waru ko waaw yoruñ sax luñ julli jee yoruñ fii lay ñaan ay saawaay naan ay kay daal man mii di wax ak yow nii sax sama portable moo tax maa ngi coordonné ak patriote ah, booy dañuy sàcc ndax yoru luñu lekk yoru luñu naan moo tax instant yi bu ñu mën a sàcc dañ koy sàccaale moo tax démb démb marché mais daal dëkk bi daal marché bi daal bañ ko utiliser woon tëj këram waaw ndax mooy futur président de la république du Sénégal incha allah loolu Macky Sall dara police yi ba toog dinañ xam ne président futur président lañ lañ barricadé tëj ko këram waaw après nag bu nekkee président de la république nañ xam ne danañ rus trop waaw mais nag ñuy ñaanal Ousmane Sonko bu baax sama classe gii toog ni yëpp kenn programme mu tabaski xamul tax programme man boo gisee programme moo tabaski rumeur yi may déggal ay dañ naan dañ koy jël buñ tabaski jël yooyu moo tax man dama préféré toog fii ñu jël ko moo tax nga di ko garder waaw man damaa préféré toog fii ba tabaski bi jàll incha allah ma dogay dem buñ ko bàyyee këram ma dogay dam jël ndànk dem ci samay njaboot julli ci incha allah rabbi waaw. président Macky Sall. président Macky Sall moom lu koy wax mooy xaw ma dafa calculer ne tabaski bi moo tax mu bëgg a def discours tey xaw ma mais daal li ma ko xamal mooy ñin avenir u réew moo ñu gënal tabaski. tabaski day jàll mais réew mi actuellement fi mu toll nii métti na trop di ko wax na ko troisième mandat bu ko laajee ci réew mi ah liñ mayoon Abdoulaye Wade duñ ko may Macky Sall de wallaay duñ ko fa may waaw di ko wax na ko na delloo si xelam te bañ a dellu ñu koy wax ay Farba Ngom ak ay Moustapha Diakhaté ak ay Cheikh Yérim ñoo ñëpp dañoo liggéeyul rek topp alalu réew di sàcc alalu réew ñu leen koy jox ñuy ñu nekk si gannaaw Macky Sall mais na xam ne moom réew moom ci ay preuve yan preuve nga si am. waaw yëpp preuve yu ma ci am kenn bëgg ko marché bi lu fi xëy mën na téeméeri nit ñetti nit ñoo ko bëgg ci marché bi ñetti nit ñetti ñëpp ay doomu xaraam leen kenn baaxu ci xool leen rek nangu ñëw liggéey booy ko bëgg fii kenn nangu ciy liggéey sacc rek lañ fi nee ñooñu nag boo xoolee ñoo bëgg Macky Sall ci réew mi Macky Sall moom ñuy sàcc ko bëgg wax dëgg fi yàlla mais patriote yi nga xam ne dañuy di wàcc man gis nga ma damay daan sama doole sama placard baa nga ne damay jaay dool si dëkk ndax ñun dañoo bokk ñoo xamante ni lu naqari Macky neex nañu. jàpp nga dañ télé national dañ koy jaay doole mooy incha allah rabi Sonko folo moom loolu maa ngi koy ñaan RTS moom na jël daf ko muy Walfadjri mu nekk télé national de la République du Sénégal waaw yeneen presse moom lu yàlla xam doy na man gëwuma leen waaw di wax ne waa F24 ak waa Yewwi Askan Wi lañ di wax nañ taxaw nañ gannaaw taxaw ci gannaaw président Ousmane Sonko ñun moom yàlla dafa dogal ni Sonko rek la xoo ni marama ko sax dama jënd ko sax jënd naa ko pare ma nga ne su mbuus nga xonk mais konoon tey ma doon xëy mais loolu moo ma tax a xëy ndax tabaski instant bi dafa jege maa ne di jaajëfal bu baax di wax booy bi nag day fen danaan booy ku bëgg manifesto fii waxu dëgg moom bu génnee si image wax ne ku manifesto fii bu génnee fii booy Sonko yi nokk ko jaa ngeen jëf ko micro mu wax lu mu Sonko mooy Sonko mooy baay man de mooy baay waaw manifestation kon yow ah, pare naa de waaw amaguma xar waaye Sonko man doy na doy na a am xar. waaw jaral na ma muy baax muy baax maa ngi am lu gars yi def rek maa ngi si seen kaw. Hmm, Sonko wala ci Macky. Sonko lañ topp ñun. Sonko waaw. amul benn problème waaw si li mu mënti ne ci la nga topp quoi. waaw topp ko rek fu mu fanaan fu la ñuy fanaan incha allah. waaw di dégg nga sa dara Sonko lay topp moom. waaw moom mooy suñu père quoi lu lu muy def rek ñun loolu la ñuy def quoi waaw. waaw ñu ngi la jël